maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen yeggalil chronique bi ma leen di defar si mbiru Adji saar Ousmane Sonko ma di leen wax ne juge bi ñaari pàcc la bu dee li nga xam ne moom lañ doon wax viol bi aji saar ba mu ñëwee ci cabinet bi juge bi da ko laaj benn mbir rek moo ko intéressé audio bi yow la waaw man la man aji saar maanaam soxna Adji Sarr foofu lu yombalale juge bi liggéeyam juge bi fi mu nekk ci instruction bi dafay dem ci ñi nga xam ne seen loxo dafa takk ci mbir bi ma di xamal ne jamono ji juge yi ñoom jël nañu seeni responsabilité te ñu ngi concerté wu si seen biir pression am na mais kenn séddewul ba léegi ci mbir bi par juge yi ñoo ñi ngi concerté wu di waxtaan bu baax ci mbir bi ma di xamal ne guddi yi nii Adji Sarr ñi ngi teg ay pexe pour utal ko këyit yi nga xam ne ay këyitu dof la yuy wane ne xelam dafa naxari bu ko defee boobaa dañ koy jël ne kenn mënu ko faje fii Sénégal foog ñu dimbali ko yóbbu ko bitim bitim réew pour mu victimiser wu jamono ji loolu lañ nekk di ko ko lijjantil mooy këyit yoo xam ne dafay wane daal ne xelam naxaru li muy def daal nit ku normal du ko du ko du ko du ko def mais may wax ne procès bés bu amee mooy nekk danger bi gën a rëy li tax ma wax loolu moo di procès chambre criminelle foofu kenn du fa àtte caaxaan foofu bés bu fa Ousmane Sonko demee it amul benn juge bu ko mën a tëj parce que ba fi ñu taxaw amul benn preuve bu mën a ne moom moo def lii kon kenn mënu ko fa tëj buñ ko relaxé wala ñu acquitté ko boobaa sénégalais yi dinañ ne dañ leen yëpp te dinañu mer te dinañu fippu te bu ñu moytuwul direct tour si réew mi moo tax war ñu yegg foofu mbir mi nag la ma leen waxoon démb laa leen di waxaat tey gendarme yu bëri téye nañu leen ñi ngi si kaso bi jamono jiñ toll nii ay gendarme tooñ nañu leen téye leen caabi féete leen ginnaaw ay militaire ñi ngi ci kaso bi ay sapeur ñi ngi ci kaso ndax dañuy seetaan justice nërmeelu ndax dañuy seetaan gendarmerie niñ ko fonke niñ ko bëggee seen liggéey ni mu rafete gendarmerie di nërmeelu ma xamale leen ak juge bi nga xam ne moom mooy Omar Maham jàll ndax ñu bari xamuñu ko te duma ma jug ci di ko wax moom mi ngi juddoo fi nga xam ne moom la ñuy wax ci loñ ci Fuuta foofu la juddoo foofu la defee cours préparation préparatoire ba am li nga xam ne moom la ñuy wax certificat fin d'étude primaire mu am ko foofu après mu ñëw def cours d'initiative si école primaire bu HLM après mu ñëw pare foofu topp baayam dem Fuuta di jaayal maamam nekk ci commerce maamam ba foofu noonu mu am entrant sixième bi mu amee entrée mu dem lycée Charles de Gaulle nga xam ne moo di ndar après mu am li ñuy wax bac littéraire la am bi mu amee bac littéraire mu ñëw dakaar fi nga xam ne mooy fac droit bu Ndakaaru mu am fa diplôme en droit public la fa la fa la fa am moom bi mu defee loolu ba ba pare jëm na def li nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy wax concours Baro pour nekk avocat mais yàlla suñu borom def bi mu jéemee def concours bi jàllul mu def concours enaa benn yoon mu def ko ñaareelu yoon bi ci 1997 foofu la yàlla defee mu admis concours école administration ñu koy wax ENAM ENAM bi mu demee foofu noonu.

daanaka deuxième cabinet bu Casamance fa la fa nekkoon bi mu nekkee deuxième cabinet bu Casamance diggante mille neuf cent quatre vingt dix ba deux mille après mu nekk premier cabinet foofu noonu ci atu deux mille six mais ci atu deux mille seize nekk na juge d'instruction bu quatrième cabinet nekk bu sixième cabinet nekk bu cinquième cabinet nekk bu troisième cabinet mu nekk président chambre d'accusation cour d'appel bu Ziguinchor la nekk foofu nag la jóge ñu indi ko Dakar mu remplacer ki nga xam ne moom la ñuy wax juge Samba Sall mu remplacer ko ñu bëri nag jëmale ay ay seede yu mag a mag jëmale ko ci ci ci ci ci ci moom ñu wax ne am na benn algérien boo xam ne dafa yoroon faux passeport parc bi ne na ko defaral mandat de moom mu bañ ba tëdd si suuf ne du ma ko mandat de dama koy def si contrôle judiciaire mbiru dossier wu port bi sëriñ basiru Gueye am na koo xam ne dafa bëggoon juge bi tëj ko juge bi bañ ba tëdd suuf ne du ko tëj muy Carmelo mu may li nga xam ne moom la ñuy wax liberté provisoire xam nga loolu firnde la buy wane ne nañu nangu seede yi ma leen di defal ci moom billahi wallahi taalaahi du juge boo xam ne moomul boppam te boo leen xoolee ni muy defee instruction bi man daf ma neex xool leen rek instruction bi ni mu koy defee parce que bu doon juge cuune mën na ne Ousmane Sonko mi ngi may xas mi ngi may wax lii dafay ñëw rek ma dóor ko dugal ko ci kaso bi mais maanaam droit bëggul loolu noonu bëggul ngay tëj nit ki ci ay xen ci dañ ko jéppi dañ ko bañ ba boo ñëwee tribunal ñu di laa àtte nga xool juge bi nga ne juge bi maak moom ñoo bokk koñ dañu am ay problème sañ nga yëkki sa loxo nga ne juge bi bu ma àtte na ma beneen juge àtte te droit boobu noonu moom mooy daw te jot na mbiru Adji Sarr Ousmane Sonko justice ragg deram ba mu set par justice deram salte na ci réew mi kenn gëmul justice su senegal te kii dafa nekk une benn occasion pour justice ragg deram loolu moo waral magistrat yi dossier bi magistrat yi jël nañ jël nañ ko amee de magistrat yëpp ñi ngi bàyyee xel dossier bi te téyel nañ ko seen bopp loxo te ñoom ñi ngi jokkoo si seen biir te di ngeen xam ne wax naa waxoon naa dëgg parce que enquête wane na loolu noonu may wax na juge bi tey même bu ko bàyyi woon parquet bi nekk bu ko bàyyi sax mbir yi du sedd parce que dañu mënul nangu si société bu normal ñu ne affaire criminelle nga xam ne chambre criminelle lañ fay àttee lu diis la mooy rey nit violé euh, jaay drogue mbirum yamba sàcc ay jur xeet yooyu yi gën a garaaw yi gën a garaaw la ñuy àttee foofu kon tey Ousmane buñ ko doon àtte chambre criminelle lañ koy àtte nga xam ne day am benn juge bu toog mu am ñaari bëkk nekk ay assesseur mu am benn greffier bu toog ne di bind mu am procureur bi toog ne la ngeen ngeen yaakaar ne foofu dinañ fa indi dossier viol bi ne dañ ko fay àtte kon chambre criminelle dafay ñàkk crédibilité parce que foofu ay caaxaan kenn du fa àtte te nit koo xam ne da ngay fen li nga wax maanaam du dëgg. loolu mënul am benn crédibilité ci bëtu juge d'instruction bi parce que moom yëmbal na ko liggéey bi te juge bi xam na loolu moo tax feneen la yóbbu enquête bi ñi nga xam ne ñoom la si seen loxo taxa moo tax muy déglu ay Mamour Diallo ak ñeneen ak ñeneen ay saar tooñ ñu bëri colonel Abdou Meng bi nekkoon section recherche man militaire laa woon ba may ne armée 2002 laa ko xam mat na vingt ans ma xam ko ci mbaax ci jub mais ñooñu maanaam ñi leen féete kaw procureur seeni chef doole bi ñu am ci gendarme yi ak ci alkaati yi foog ngeen xam ne dafa bëri te nit ki boo jàngee ba at mi concours nekk fenn di liggéey danga am jabar am doom gis nañ juge yoo xam ne dañ leen di affecté sans seen consentement par y a l'inamovibilité du magistrat ma xam colonel ab Meng nag xam ci moom mbaax ak diine dossier bi ñu bëri seen der yàqu na ñu bëri jaratuñu dara ci réew mi xale bi sosal na leen fenal na leen léegi nag finalement fi ñu bëgg a yóbbu topp leen ko mooy ñu ne dof la waxta ñi ngi waxtaan ak benn docteur pour yóbbu ko fa pour ñu defaral ko këyitu dof joo xam ne fa la ñuy jaare fay coow li fa la ñuy jaare parce que ku dof kenn mënatu la déglu par loi moo la protéger ku dof moom kenn mënatu la déglu léegi bu ko defee ñi ngi koy waajal visa pour yóbbu ko bitim réew pour ne dafay faju ji ci diggante bi ñu xool nan la ñuy bàyyee affaire bi mu sedd te li ma wax enquête révélé naka magistrat yi ñi ngi waxtaan seen biir juge bi gars ñi ngi koy teg pression mais man sama xel dal na ci moom ndax fi mu jaar fi mu jaar ñëpp seede nañu ne du juge boo xam day def lu neex parquet wax naa leen ko algérien bi nga xam parquet dañ ne ko tëj ko mu bañ ba tëdd suuf may ko liberté provisoire benn algérien bu yoroon faux passeport coowal drogue port sëñ Bassirou Gueye dana ko tejeul waa mu bagn mu may ko liberté provisoire lolou firnde la te meun ngeen ko vérifier au niveau du tribunal manam dama beug rek sen xel dal ñu xamné juge yi suñuy frère lañ ñoo bokk Sénégal dañu at mi rek di nattu pour dundal sen njaboot mais lu jiig ñak pouvoir exécutif bi moy ñak parce que mo sonal juge sonal le pouvoir judiciaire tek leen pression di affecté juge sans seen consentement te li mo moom mobilité du magistrat dafa am